seen site Dakar Matin moo leen di may seen revue de presse ak Pape Alé Niang ambali yéenekaay yi ak marche bi nga xam ne opposition bi waxoon nañ ne fala bu dee dinañ ko amal ci ajjuma ji bu nekkee ne yéenekaay bi di l'observateur dafa mel ni lu koy tuutil ne opposition bi daal marche nañ te mobilisation bi ci désordre la nekkoon yéenekaay bi di laas ne nañ waxal yàlla rek te yàlla tax démonstration de force bu rëy l'opposition bi def seen marche boobule opposition bi kay mën nañoo wax ne lan leen dem xaaree ne est-ce que dinañ ko matale matale leen ko bu baax a baax mobilisation moom bëri woon na fa lool démb ci marche bi ñu yàq lu mel ne xamee kii di Macky Sall loolu ñu ne kay bi les échos xamal Vox Populi ne d'accord naa de. d'accord naa de opposition bi réussir nañ seen démonstration de force opposant Macky Sall yi moom démb mbooloo mu takku lool lool lool lañu ñu génnee ci boulevard général de Gaulle te loolu dëgg enquête na d'accord naa de forte mobilisation lañu gis démb donte sax yenn kay bi Le Quotidien nee na guerru pancarte moo fa amoon ci biir yenn kay bi Les Échos isaa Sall ne lii mënta nekk tëj ci gémmiñu askan jël ñenn ñi tëj ci biir kaso bi jël ñenn ñi exilé lépp rek ba ñu doon candidat waaye li dafa yiwul rafetul tegginawul loolu lay saa sàll wax ci biir yéenekaay bi di les échos Déthié Fall na Macky Sall dafa incompétent président bu tële lool ci biir Vox Populi nee na feebar bu gën a bon bu dugg Sénégal Macky Sall la te faaw ñu faj ko bu baax a baax Omar fay ne marche bi mooy ndorteelu daanuk dynastie fay Sall les na waaye nag la ñu seetlu woon ci marche boobu moo di leader yu bëri ñëwuñu teew waaye li gën a neex ci marche bi tamit ne les échos koy wax de nee na manifestation bi amul benn problème dem nañ ci sax bay tàcc force de l'ordre yi ndax seen taxawaay bu rafet ca booba APR ña nga jën a woon ak taskatu xibaar yi ñoom it di defante loolu yéen a kaay bi di enquête wax Seydou Gueye moo yoroon kàddu yi daanaka dafa na taret xotti arrêt bu CEDEAO yàq lu mel na xamee kii nga xam ne moo di Karim Wade nee na Karim Wade moo gën a xamaatoo na munta vote te munta doon candidat xalifa Sall tamit du bokk ci élection présidentielle yi loolu la wax nee na li am ba des moo di amul rapport hiérarchique ci diggante cour de justice CEDEAO ak juridiction yi nga xam ne ñoo nekk ci réew yu bokk ci CEDEAO ci biir yéen kay bi laas mu sar xolle na Khalifa Sall fi mu nekk nii dañ ko débouté ci fukki laaj ak ñeent ci fukki juróom-ñett yam doon sàkku waaye ci biir yéen a Le Quotidien droit de l'homme nag wax jooju yëpp dafa bari xalifa sàll moom dangeen ko war a libérer rek loolooy dëgg Aziz yi bàyyi nañ ko Vox Populi moo ñu ko xamal waaye dañ ko inculpé placé su contrôle judiciaire ba pare di ko tuumal association de malfaiteurs tromperie sur la qualité d'un produit commercial. Sédhiou attaque armée moo fa amoon lu toll ci fanweeri nag ñu sàcc ko loolu yéen kay bi di xamal Gris Bordeaux courant moo commence xaw tuuti hmm, duñ ci yegg Vox Populi moo ñu ko xamal waaye Eumeu seen moom moo ko sovee moom moo ko yóbbu hôpital ak rakkam Maodo ñu yóbbu ko service de réanimation yéen kay bi Les Échos na sant yàlla bu baax a baax jën ngeen jëf dégg bu leen dajee altine jàmm incha allah